envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. donc kii mooy ministre de la jeunesse moo ñëw ngir ànd ak waa Mbour li nga xam ne mooy naqar bi nga xam ne moo fi am parce que lii tamit c'est normal mooy jëwriñ ji moom lañu dénk lu jëm ci wàllu ndaw ñi kon yu mel nii tamit dañ ko ciy soxla donc mu ngi noonu muy ministre de la jeunesse mooy installé noonu ñu ngi gis préfet ñu ngi gis préfet noonu ministre baa ngi noonu ministre baa ngi noonu ministre baa ngi noonu ministre baa ngi noonu ñu ngi taxaw ak préfet ministre baa ngi noonu parce que li xew Mbour franchement doy na waar moo tax mu bàyyi ay activité ñëw parce que lii moo tax ñu fal ko ngir ñëw taxaw ndaw ñi saytu ndaw ñi ngir xool seeni jafe-jafe donc euh, donc ministre baa ngi noonu mu ngi installé mbokku mool yi fii Mbour Tefes maa ngi leen di nuyu ci turu son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye di nuyu kilifa diine yi ñu fi fekke imaam ak kilifa aada yi ak mbokku muur yi nga xamante ne ñoom boobu ba léegi ba ñu duggatee ci dëkk bi ñoo ànd ak ñun muy monsieur le maire Cheikh Issa Sall ànd ci tamit ak le conseil départemental euh, monsieur Saliou Samb avec son représentant qui était là-bas avec nous tout à l'heure Ouest fa ñu njëkkee ak suñuy mbokku parti politique PASTEF Kulim Dioum ak mboolem autorité politique itamit bu fi taxaw tey jii autorité locale ak ndaw ñi itamit ñi nga xamante ne ñoo ngi fii mooy maanaam euh, ndaw euh, jeunesse sportive les acteurs sportifs ak tamit les acteurs culturels ak les organisations de jeunesse ak service déconcentré yi nga xamante ne ñoom ñoo fi teewal tey fii nii buur ak di gërëm di santaat itamit monsieur le frère bi nga xamante ne moom moo ñu accueillir fee ci bunt ba bu ñuy dugg si kàddu yi itamit comme na ma ko waxee fee ca Coose Ouest rek daanaka kaddu massawu la mën a doon ndaxte itamit wolof Njaay dafay wax ne bu ndox tuuroo an baax moo ci des kon boog nit ki tamit duñu nekk ci naqar ñun ñëpp bëgg ca boole itamit wax dëgg neex yàlla loolook loolu gi waaye ci gàttal rek mu ngi leen di massawu au nom du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ànd ci itamit ak le premier ministre Ousmane Sonko le chef de l'État ci kàttanu yàlla suñu borom ak yërmandeem dina nekk ak ñun ci kanam tuuti ni bu boobaa fas yéene na jàkkaarloo ak yéen waxtaan sekk ak yéen benn waxtaan mën dee rescapé yéen famille yi nga xamante ne yéen ngeen ci am seen i njaboot yu low ak les autorités aussi locales et les autorités aussi déconcentrées fii nii ci dëkk bi ñun nag suñu teewaay bi ñu ñëw fi jiitu si woon ko man en ma qualité de ministre de la jeunesse des sports et de la culture ak monsieur le ministre Serigne Gueye Diop bi nga xamante ne doomu dëkk bi la itamit ministre du commerce en charge de l' industrie des PME et PMI dara waralu ko ngir gannaaw ba nga xamante ne jot nañu ndigal pour ñëw fii tey jii jiitu fi son excellence le président de la république ñu daal di ñëwaale itam ñun tamit délivrer waale ay message ci ndaw ñi ndaxte ñun ndaw ñi man ndaw ñi lañ ma dënk fu may waxee dama ne man ndaw ñi lay waxal yéen yenn kilifa yi ñu fi fekk tey muy kilifa diine gi ak kilifa aada gi les plus hautes autorités de ce pays tamit ñu ngi fas yéene sukkandiku ci yéen ànd ak yéen pour mën a ànd ak ndaw ñi pour mën a liggéey senegal <clears throat> dana ma ko waxee fee rek mënuma wax lu romb loolu ndaxte ndaw yi suñu ndaw senegal gi muy ndawu département du Mbour ndaw Saint-Louis Kayar Fass Boye ak fu ñu munti nekk ci littoral bi Ziguinchor Tambacounda ci fleuve ba au nord du Sénégal dans le Dandé Mayo ci ñoom la ëllëgu Sénégal ci seen loxo la ëllëgu Sénégal nekk ñoom bu ñu demee ci mbëkk mii daal di loru ci géej gi bu ëllëgee kan may liggéey Sénégal tey ji fondement yi nga xamante ñun ñu ngi ciy liggéey suba ngoon guddeeg ba ci ci suñuy ndiggalu kilifa si ci la ñuy xëy di ci gont kan moo fi nekk pour mettre ko en œuvre wala pour consolider ko ndaw ñi nañu ah, gën a amaat yaakaar yaakaar ba ñu amoon ba daal di teg le projet bu ñuy wax la projet de changement systémique di Sénégal yaakaar ba ñu amoon ba daal di génne massivement ci bésu 24 mars 2024 ba daal di voté massivement ba teg le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ca kaw boppu réew mi yaakaar boobu bu ci dara wàcc yaakaar boobu bu mu xejam bu ca dara jóge ndaxte amuñu benn raison pour yaakaar boobu noonu di tas bu ñu war a mën a jël gaal gi di daal di dem di loru ci biir géej gi ci lu doyadi te Sénégal daal di leen soxla projet yi ñuy taxawal ne fi programme yi ñuy taxawal ne fi te yaakaarewuñu ci kenn fas yéenewuñu sukkandiku ci benn levier gannaaw la jeunesse sénégalaise Barke Dembo Ndiaye le premier ministre était à Matam dans la zone nord du pays kàddu yam fa taxawal ñëpp dégg nañ ko xej na ndaw ñi la ci jiital ne leen amu leen benn raison pour bañ a mën a am yaakaar toog pour mettre en œuvre projet bi ndaw ñi ñoo xeex ba projet bi mun a taxaw ba Sénégal mën a am un changement au plan du régime politique kon boog ndaw ñooñu nañu simeekuwaat taxawaat xeexaat ba mën a mettre en œuvre projet boobu noonu waaye bu fekkente ne ñoom ndaw ñi dañoo teel a découragé wala ou bien dañoo wane benn impatience bu boobaa xëy na projet bi ñun buñ koy mettre en œuvre am ay difficultés wala xëy na itam bu ñu koy mettre en œuvre dañuy woowi yeneen jeunes yeneen réew pour ñoom ñu mën a ñëw daal di ànd ak ñun pour mën ko mettre en œuvre may waxaat di ko bamtuwaat rek man samay discours yëpp te dama ci fekk si njiitu réew mi fekk si ci le premier ministre chef du gouvernement l'ensemble des discours yi nga xamante ne moom moo concerne les politiques publiques de développement ci ndaw ñi lañ ko articuler ndaw yooyu ñoom ñoo jiitu ñoo nekk ci digg bi ñoom ñoo mujje et ces politiques publiques de développement s'adressent à eux dégg naa sànq jaraaf li ngeen wax dégg nañ ko bu baax a baax a baax te monsieur le ministre Serigne Gueye dégg na ko man itamit dégg naa ko bu baax a baax nee ngeen bu ngeen gisee lu waral lu mel nii ci mool yi ñuy dem di affrété ay gaal jën moo amatul da ngay xëy suba teel di dem dikk loolu yëpp dégg naa ko te xam naa ne loolu noonu man dégg naa ko te fas yéene naa ko yeggee fa ma ko war a àggee ministre de la pêche su ma juumut ci fan yi ñu génne mu ngi woon fii ci gox bii loolu noonu yëpp ngeen ko gisee mooy xool rek nu ñuy gën a ñoŋalee ñun suñu liggéey ak fan la ñuy gën a war a mën a taxawee ba mun a xool ñun lan la ndaw ñi soxla fii ci Sénégal pour war daal si fee mën a toog wala ku ciy demee ba amul xel pour immigrer sa xel du daal di dem ci jël ci gaal yi yenn waajur yi nag yenn yaay yi. sànq kontaan naa loolu ba ma déggee ba jaraaf waxee ne ndaw mu ci dem rek ba loru ci du kenn ku ci sa waajur yónni du kenn koo xamante ne tàggu nga sa waajur loolu dalal na suñu xel di leen ñaanaat itamit taxawaay boobu ngeen amoon na ngeen ko gën a amaat tey képp ku ci njox ne sa doom mu ngi waaj a def naka su dul noonu wala mu ngi waaj a jël gaal yi na nga def sa kéem kàttan bu laajee nga alerté les autorités administratives ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi teewal buur ci diwaan gi na nga ko def bu laajee itamit nga dem alerter le commissariat central bu fi nekk na nga ko def bu laajee itamit ngeen dem ci imaam yi wala ngeen daal di dem ci bàjjenu gox ñi wala ngeen daal dem ci organisation sportive yi wala des des acteurs culturels de jeunesse pour mën a freiner loolu na ngeen ko def te incha allahu rabi ñun ñu ngi taxaw ci seeni wet duñ ci sonn duñ ci tàyyi di ñaan rek may leen ñu tuuti rek incha allahu rabbi Sénégal njaay gii am nañu yaakaar comme nu ko njiitu réew mi amee ak le premier ministre teg ko nag ci kàttanu yàlla suñu borom parce que nag lu sotti yàlla suñu borom moo ko sotti lu àgg itamit moo ko àggal mais ñun de ah am nañu yaakaar ne de yal na yàlla maye kàttan nag wër ak wërle ak fekket tal Sénégal dinañu ko def réew mu xemamu réew mi nga xamante ne danañ fi toog ba ab ndaw dina xalaat leneen lu dul di jël gaal. di daal di dem feneen extérieur te bëgg nañ ko itamit fexe ba Sénégal nekk réew mi nga xam ne ña nekk bitim réew ñoom ñooy bëgg di ñëw di demander ay visa wala di bousculer pour ñëw dëkk fii nii di leen massawu wat di leen massawu waat yal na yàlla may xolu muñ ndaxte lu xew nag moom tiis gii métti na lool rëy na lool kon boo xolu muñ kese ñan nañu ko yàlla may ñun ñëpp ndaxte ñun ñëpp nous sommes atteints muy le ministre Ngaye Diop muy man mi ñu ñëpp doomu dëkk bi lañu suñuy waa kër ñu ngi fii suñuy kër ñu ngi fii suñuy mbokk ñu ngi fii fii ba diwaanu Joal diwaanu sànjara àgg ba ay fas Boy ak feneen ak feneen yal na yàlla maye xolu muñ ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci loru yan nañu mottalee seen i ndaw ca mbaax zàq ca yombal xiyam yan nañ fa mottalee seeni ndaw ñi nga xamante ne itamit dem nañu bàyyi fi ay tuuti tànk yan na yàlla suñu borom teg seen loxo ci seen i kaw yan na yàlla suñu borom teg ci seen te lii yan na fi gëcc yal na fi géej gëj ñun itamit ñun ñëpp nañu àndandoo booloo xàcceendoo dóorandoo ba Sénégal ñu jële fi li ñuy wax lii mel ni mbëkk mi di leen gërëm leen sant ci taylu bi ak teewaay bi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu